des médias euh, du problème sax xëy na sax ñu def ko problème waaye man pour man du problème Bougane ku baax la ko am am mission la ko am misère la am mébét ti fi mu jaar ba am télévision am rajo mais man na fee jaar am leneen gis ngeen nit bul bul ko gis nga ni damay dal ci kawam olof day wax ne doom june lu ko wuy juróom bootee ku ko xamul teyal ci moom doom june la ko wuy juróom bootee ku ko xamul teyal ci moom fiir la rek politique la rek mais politique boobu lañ war a bàyyi gis nga bu dee président falul boppam te fi mu faloo fooguñ ko fi woon Ablaye Wade falul boppam fi mu faloo fooguñ ko fi woon Abdou Diouf falul boppam fi falo faloo fooguñ ko fi woon ndesitu Senghor la jël toog ko mu jeex mu jël ndes mu mu continuer nit ñi di ko wóolu rek waaye gis nga ba mu jeexalee toogu fi ba mu jeexalee la dem yoonam mbir yi ku defee ne pexe la ku defe ne pexe la dangaa ngaa juum mbir yi du pexe nañu bàyyi Bougane tout tranquille ubbi kontam yi mu dox télé bi ñu ba ko fi askan wee ko moom ñu féexal ko waaye daal ku bëgg dara ñu xeex la mais du noonu et pourtant et pourtant euh, président de la république maa ko dégg mu wax ne at bu at mii un milliard at topp un milliard at ma ca topp un milliard at ma ca topp un milliard pour ndaw ñi Mané moo ko wax pour ndaw ñi mais yow su fekkee ne yaa ngi wax loolu nga gis koo xam ne mu ngi mu ngi dimbale askan wi di leen faj lu ne mu koy def mais da koy woo ni ko jaajëf gis naa sa liggéey ñii nga jël xale yi nga jël soo leen jëluloon ñu fitnaal ma waaw kay waaye di ko xeex du alal nañ ko bàyyi lii ci nettali rek lay mujj ci waxtaan rek lay mujj ci jeex na rek lay mujj dara du fi des àdduna lu fi sax amu fi àdduna lu fi sax amu fi lu sax rek dana sàq lu sax rek dana sàq kon problème mu moom ci boppam des médias defuñu dara nit ki sax bu waxee lu la neexu woo ko ne ko kas sa télé wax nañ ma lii wax nañ ma lii mu woo leen wax leen ne leen kat bi ma leen di fay woo fayu leen pour ngeen def lii maanaam lu ci nekk rek wax ko ko lu ci nekk wax ko ko avec rigueur avec respect avec tolérance yooyu yëpp ngay xool nga xam ni kii du du du ko tuuti nga wax ak moom ci yar ak teggin ak sutura ba pare déglu ko mu ne la incha allah dinaa ko def xëy xëy rek woo ay gars yi ñuy bind ci kaw de ni fii def fii mooy ay soob la rek ah moom du tax du tax sax ki nga bokk rëcc du tax du tax sax ki nga ki nga ki nga làq mucc dama bëgg ñu xam ne yàlla fi ne yàlla rek moo fi ne kenn nekku fi ku ngeen jàpp ne moo fi ne newu fi yàlla fi ne mais nañ ko nangu c'est et puis c'est mën na mën na nekk xam nga nguur euh, dafa neex dafa neex xam nga tàccu yeeg yu kenn xamul yi waaye gars yi dañoo garaaw président da leen war a xam gars yi dañu garaaw de waaw yi dañoo garaaw de bari na ko toog ak yow intéressé woo ko intéressé woo ko da koy xam du la wàññi dara soo paree mu dem nga dem mais tant que réew mii mag yi xamu eh, du dem réew mii ni ma xamee nit ñi seen coxor seen kiñaan seen yéene yu bon xoolal nga topp ci nit di dox ba pare di ko fakkasal pop topp ci nit muy sa guddi di sa bëccëg ngay daw naan ko chef nangam nangam nekkee moom rekk nga bañ mais alhamdulillah yàllaa ngi fi yàlla moomu fi ne nag doy na doy na lenn nekku fi buggaan daal na góor góorlu na fas jom dolli ci lim façon góor góorlu dolli ci lim góor góorlu woon kiy maye yàlla la ki xañe du maye kiy maye yàlla la kiy xañe du maye waaw kiy xañe ah? ki ki yàlla la kiy xañe du maye waaw yàlla mooy maye nañ ko déglu rek nañ déglu yàlla jëf xam nga eh, maa ngi doon bëgg a fàtte sax waaw buggaan moom ferte la ferte bu baax la waa nga wax nga nga lépp wax nga lépp est-ce que xam nga ne télé Bougane bi buñ ko tëjee man dama liggéeyati dama bàyyi Bougane ko ba adduna tukki xanaa Bougane xëy ne ma Iran bàyyi waaye man sama deret bii sama deret ji duma bàyyi Bougane kenn du ko sikkal mukk ba mu sëkk ci man ku baax la kenn du ko sikkal mukk dama ko wax waaye nit ñi moo ko kenn ñi moo ko maa ngi ci léppam ci kanamam ci gannaawam ci ndeyjooram ci càmmoñam ci kawam ci suufam lii ma ko wax na ko weddi nañ tëj télé bi ma xool du dégg mukk ma ma dem ci beneen télé xalaatuma ko dafa am wóllëre gu ma booleeg moom duma ko sikk ndax sikkul duma ko doyadi ndax doyadiwul te kat ku am fulla la nag ku am fulla ak fayda la kenn du jaar ci kaw moo tax ma bëgg ñu waxtaan nañ waxtaan suñu waxtaan yi déggu suñu waxtaan yi jum lii day jeex lii day jeex waxi des fi day jeex kon li nga wax ne ferte ñépp la mooy dëgg ferte Sénégal yëpp la ferte ñépp la ñépp ñépp ñépp moo tax na muñu rek ne dëgër rek na sax rek kenn yoru yàllaa ko yor fi ci des nag ma gërëm soxna Baali Mbàkke yére bii ma sol moo ma ko indi Tiwaawoon su ma demee Tuuba këram lay dal des médias ñoo fa mas yóbbu benn jour mu teral ma continuer dal bi moom moo may woo ne ma foo toll ma ni ko mbàkke maa ngi ci yoon te kat wéruma wéruma moom xam na ne sax ma damay dem rek eh, ren ay tiktak rek laa def ku ñuy wax benn waay laa jël rek taf taf sama côté di ko waxloo di ko laaj rek ba heure bi jeex waaye soxna Bali euh, ku ma yéem la ndax fi mu bokk ku fa bokk boo boo boo boo boo boo boo boo wàccee dana ma jaaxal daf ma oo ne ma dimanche yaa nga fa dimanche bii passé de bii passé de yaa nga fa ma ne ko waaw mu ni ma dafa am sama benn mbokk bu jógee Amérique bu la bëgg a gis ndeke mooma ma toog bañ julli timis rek xale bi wax ma ne soxna baale ngi lay seet mu ànd ak ñaari taalibim ak doomam moo koy dawalal mu ñëw loo yaakaar ci àdduna loo yaakaar jënd na ko indi xajul fii mënuma ko indi fii ma indi lii mu yëkkati mbubb mi may ma ko yëkkati parfum bu neex may ma yëkkati lu bëree bëree bëree bëri xam naa bu màggal nekkaatoon suba sax ma dem waaw xam naa ne <laughs> su màggal gi doon suba ma xëy dem seeti ko waa dëgg yàlla mu indil ma lii euh, ma koy sant daaw def na ko ren mu def ko daaw dama demul màggal ma demal ma demaat dama feebaroon mënuma dem màggali te woo ma ay yoon mu mujj rek rus biñ màggalee ba pare ma dem seeti ko ne ko baal ma rek dama feebaroon moo ma teree ñëw daal di waxtaan ak moom def nañ ko jàmm ci info voilà looloo tax nag ren ñëw na fa ne ma gàmmoo leen ah gannaaw gàmmu gi ni mu demee ma ne naa ñëw rek waaye dama naroon su gàmmu gee ñu dajale ñépp ma ni ko ëpp naa def ndax gan ñooñu foo leen di dugal nga dul am waaw waaye daal lii moo ma ko defal bëgg naa na ngeen teg ko li ngeen di doy waar yépp na ngeen ko teg lii daal ah rafetul lii rafet na de soxna Baali Mbàkke ma ko jox rafet na de ti jasneer pur la waaw ah, pur bokkul ak sol yow moom pire la kon nag ah naka mu ku la defal lu mel noonu da koy sant da koy gërëm bu ngeen amul lu ngeen ci teg kon kon ñu yeewu ñu ñu ñu wax Macky Sall mm-hmm. na tey rek na tey rek ñu wax Macky sàll na téye rek na téye rek mm-hmm. bu téyee lépp dana baax asalaamaaleykum wa rahmatullah